premier coup franc pour ASC Kër Seyib Ndoye ñu présenté leen ñaari équipe yi benn équipe bi nga xam ne moo Kër Seyib Ndoye moom Bécaye Ndiaye moo ko indi ñoo am noonu coup franc war koo tiire mu jëm ci côté foyer bal lu muy def delloo nañ ko ci camp yi bal bi dugg na première occasion première bi def nañ ko ci camp yi noonu lañ ko doon waaje noonu lañ ko waxee woon première occasion première bi dugal nañ bal bi mbëkk ñu delloo ko ci camp yi bal bi daal di dugg 1 pour ñi waa Kër Sayib Ndoye ñu nga leen gis nonu ñom ñoo nekk ni aussi soxo mo dugal première bi bi nga xamni moy bi bi nga xamni ñew na ci match bi à 2 minutes 3 à quatrième minute 2 jeu la balle bi duggu ci coup franc buñ tek dugal ko ñi ngi non di tàmbaliwaat match bi nak nee nañ 0-0 la waaw ñi nga xamni ñoy wa keur Sey dugal nañ benn foyer centré nañ bal bi day génn puus la arbitre bi waax benn ci dara côté Kër Seyib Ndoye présentation bi waaw gis ngeen noonu vert yi comme ni ngeen ko gisee mooy waa foyer jeune de Medina ñoom ñi nga xam ni ñoo jógee Medina Fall ñëw voilà ñu ngay dem delo na ko bir biir am gol bu day génn wala no défenseur bi génn na bal bi lu muy def ni da koy xar wala da koy tëbal ci bir wala da koy paas def na ko si digg bi foyé ñom ñoo jël bal bi waaw foyé ko yor ña doxal dañuy def relance wala ñuy def ni muy def ni lu def ni day tous arbitre mu dem ci biir tuus la ñu joxante tàmm nañ ko ñoom waa Foye ay eh, xale yi kër Sayib Ndoy yi kooku ñuy wax bégaay mi nga xam ni benn benn lañ la oh, équipe bu mu yor tiki lañ koy liggéeyee moom lañ naan Mourinho Barcelone moom moo fi xewal tiki benn benn moom bégaay Njaay moo indi tey ñii ñooy waa nga xam ne mooy waa Kër Seyib Ndoye match bi nag mi ngi dem 1-0 fi mu toll nii pour waa Kër Seyib Ndoye ñoo ko amaat day génn lu muy def góol ba génn jël na ko def relance bu ndaw ay ca ñu def na paas génn na tuus mooy tallal loxoom pour fët lan la lu muy am dañuy dem waa kër waa mel na fale o oh, laaj na ko mais teewul bal bi ñëw na ta nañ ko xale kër sey bi jël nañ ko siifaat nañ ko si ñoom lu def dañ koy génne fi xale Médina Fall bi day fàtte numéro 7 kër sey ndoy bi te xale bi dafa moomi tànkam ma ngi koy Zembour def na paas góol ba na lu am suy met suy met laay am lu ñuy def nañ jëlaat na ko def na relance ca kaw dañuy dàqante orzo la arbitre wax del na bal bi ma ngi koy yóbbu kii lu war a waxak ak moom waaw dina ko jox ndàmpaay foom jox na ko carton na ko zone ndàmpaay foom mi noonu Arbit bi neena na ko gone du ma fonto lu am relance la ci kaw def na tëmbal ba gol bi da koy xol ba bal bi waccal bopam suime la du wa ak arbit bi lu xew baye mo nga jouer baye mo nga jouer sinon dama lay carton yaangi deg arbit bi safo mo la ko yobbe gardien gaawal nga dégagé. waaye massivement ñëw nañ yaa ngi dégg seen supporteur yoon noonu ci kaw ASC Foyer ji kii kaw ñu def bal bi ci digg bi moom gardien bi mu ñuy def ni xale kër Seyim Ndoye yi bañ génnee ba léegi dañoo indi beneen xar kanamu jeu ñoom xale yi Bécaye Ndiaye yi jeu bu rapide lañ yor ci kaw di ko joxalante gis nga. latéral ba génn uh, def na ko ci kaw mais intercepté nañ ko jeexagul waaye da muy mujjee da koy koy ñu dem joloon na ci kaw eh kii lu def nii góol bi lu muy def nii mais bi lu muy def Dudu Gueye dóor ko au poteau Balbi jall jàll arbitre waxul dara mandee na balbi mom attaquant bi arbitre nee na kon ndax mo woote ndax mo woote mais waxul dara ma nga teud ker sa koy ndam bay gu mel nga am ko ñu jox la njoñ ginar defar ko bam bax nala am xewlul nga kep ci suuf ba jaaxaan joué bi na lii de équipe bu ko musaan am day am ay yaakaar ak am courage dem nag dugal yi am delloo na bal bi ci digg bi bopp la ñuy def latéral bi mooy génn neuf bi dafa ñëw di défendre si accompagner bal bi ba ci touche yi arbitre ne touche côté bële ba dugg lu am foofu arbitre waxul dara ndax mi ngi doon joxe signal fi pour jour bi dugg voilà ña ngay xeex ña ngay xeex fële relance na bal bi ñu def koy joxe ci kaw ñu génnaat lu muy def da koy relanceat baaxul waaye li ñuy def ni seen jeu bi dara baaxu ci ndax ñeent lañuy teg benn côté walla wële ñeenta fa taxaw fii ka fi nekk day absenté bu defee dañuy colol bal bi rek saa yi génn waaw comme njaw ma koddu fële démb njaw ma koddu ñu fa amoon sampaate ak jàmm gën sampaate ak jàmm gën def 0-0 final coupe du maire la woon ñu témboo dara dara kenn dugalul sa moroom ñu dem ci tiro bi euh, jongante dàq dóor ci mbaal jàmm gën am ñeent ñi nga xam ne ñooy sampaate am ñaar noonu la mujjee jàmm gën jël ko ci at yoo xam ne yàgg na ba mu gëjee lal coupe bi moom jàmm gën côté foyer moom moom lu ñuy def relance na lu muy am des na ba tey lu arbitre di wax faute bu jëm côté waaye zone de Ménéfal temps dagaale jóg la côté foyer interception génne na bal bi en touche lu ñuy am don démarré nañ acca ñu dem arbitre baa ngoogu Sissoko moo entré première bii bi moo ko mbëkk mu dugg mom ci soxo chan ñu dem ci attaque bi fële ñu fàttali len ni du Gueye ma nga fa du gardien foyer bi mooy dégager ñu dem ay ca ñu dem da koy uddi ba mu jeex tee na lu muy def ni na ko lu muy am ay centre wala arbitre yuuxu nañ pelanti arbitre ne dara dara la arbitre wax amu fii ay ca orzo ngi réclamer VAR mais côté bële tous am na fa bi autorisé wuñ fi VAR la arbitre bi wax xëy na bu match bi jeexee bu defal leen ko ralentir nañ leen ko ralentiral ba ngeen kontaan nañ ko indi ay mille de fois arbitre bi xam ngeen ko kenn doo ko yab nee na faute amu fi laa wax kenn mën ci dara yàgg nañoo teel jël bi yàgg na ci ñoom ndax dinañ ko éviter lu ñuy éviter la ñoom waa foyer yi buñ demee dellu si njàngat yi wala da ko doon tenté dugal mais dara amu ca bal bi daa génn ndànk ci tuusi man sama njàngat bi nga am mi ma am nii ci waa foyer mooy seen côté bi laaf bi boo seetloo dañ koy génn normal wàcc ko fa ci côté ba nale ñoom toujours bal bi la ñuy topp duñu xool joueur bi te joueur défenseur da ngaa war a am visibilité ci attaque bi ah arbitre dugalal ba pare ñu xool vaar da ngaa waroon a dugal ba pare ñu xool vaar daara amu ci daara amu ci arbitre maa ngi jégalu dengan nelo wow wow đó à coi tumble em đó cô coi lusal đang cứ ñu jug mbëkkante aca ñu dem bal bi romb au franc la arbitre bi wax jëm côté Kër Sayib Ndooy ñoom waa Kër Sëy bi ñu ngi koy joxalante ndànk-ndànk di ko yootee de naxtaan waa foyer yi ndax ñoom ñoo am benn Robespierre gaji saaga yépp mi ngi am ci match bi voilà bu fan dóor at jox na ko ndigal ay ca ñu dem nu muy def jóg nañ bëgg ko koy delloo ci point penalty bi wala déedéet lu muy am dóor na ko na fi jóge ca dañ koy relance wala waaw waaw wa lu ñuy am dara amugul les foyer ñi ngi sercé mais ñoo gis buntu dañu tej buntu yëpp kuruj sànni caabi ja géej loolu la ko wa kër sey bi wax tous nañ bal lu ñuy am dudugai gay ca ñu joxonté bal bi ndank bu la fa féké dama lay damo mi ngi naan na dëgër est-ce que du dëgëree sa côté lu muy am génn na bal bi lu muy def lu muy def acca ñu dem tuus la côté bii la jëm ya ñu doxal ñaa ngay dem relance na góol bi day génn intercepté jàpp na bal bi ndànk day relance wala day téye relance na bal bi ay ca na fi jóge foyer bi dindi na ko ndànk paas bal bi lu am kenn ko fa gol bi day japp ndank balam ba mu baye ko mu génn da cey fo da cey fo da cey fo mom gardien bi kenn fekk ci wuko ko maa ne damay foo ñewol jël bal bi da di koy relance nak ndank ay ci rob na bal bi ay ca ñu dem da xaar mu bonde Doudou Gueye def na paas jour bi gën a expérimenté terrain bi def na ko dagg góol ba jël na ko à deux temps ay ca ñu dem dégagé na ko mu ay waatee na ko ay ca faute la arbitre wax c'est vrai c'est la arbitre bi wax te am na ko la jóg nañ mbëkk bal bi lu ñuy am ndànk yéen ñaar la yaa xawgul ay ca tuus na côté bee la jëm la arbitre bi wax bal bi arbitre bi na joué ay wa ñu doxal nañ doxal bu muy cherché du Gueye lay cherché waaw waaw da ngay réclamer faute ay ci ñu dem waaw waaw koy relance yi Orzo la arbitre bi wax jël na bal bi da koy duut wala da koy dud duut na ko Doudou xajal nañ ko lumay def ni lumay def ni xale bi lumay def ni dorna ñu té ko arbitre wax lan ko franc la wax ko franc la wax fi du Angleterre bi neena fi maña Maniang la du Angleterre bay leen seen yi ngeen di def damay gëna carton yi ci la bok comme prévu lay doon wala dañ koy soppar ñi def ko neneen sànq ci bal arrêté la la huitième minute ñu duggal ko mais bi pa du duggay moy assurer bal bi mais genn na genn na gardien bi moy assurer door na bal bi mu dem mo muy am santé nañ ko genn ah, na ko fee su ndey joram lu muy am retrait ci kaw ah bu ko ko defaral wacce na ko lu muy am door na ñu xaru ko troisième larron baaxul arbitre loo wax arbitre nee la simulation plus carton arbitre bu VAR amoon da juum bu amoon nga tiré pelanti ndax dafa jug ci kawam wéeru ko loxoom ay ca ñu dem lu fu waaye def ni génne nañ bal bi na ci kaw aywa ca milieu terrain ba lu ñuy def dañ koy joxalante yàq na ko xale fu lu ñuy def nii lu ñuy essayé defal na ko profondeur ci ginnaaw lu muy def arbitre loo wax tuus la wax ñu am tuus bu gaaw ay ca ñu dem aywa ñu dem lu muy def da koy tee ay cee ñu dem fàtte na ko ci ginnaawam lu muy def day pasat génn na ko fa retiré lu mu am arbitre nee na dara arbitre nee na dara lu ñuy def day relance bal bi mu dem ay ca ñu doxal ñu doxal xale fu waaye yi ñu fàttale leen score mi ci benn bal ci dara waa ah, kër Seyib Ndoye ñoo am benn xale yi Bécaye Ndiaye yi ñoo def benn ci dara mais eh, fi mu toll nii xale dañ leen sa ngëmtalu bëgg dugal ñu lànk du ngeen fi dugalee koo franc pour kër Seyib na lu gol bi am défense ba delloo na ko joor bi attaquant bi dolla ko lu muy am passante nañ ko lu muy def nii arbitre lu mu wax nee na dara nañ leen joué arbitre nee na coup la waaye ñoo am noonu coup franc ñoo am vert yi waaye moo vert bi def nañ ko ba lu muy am dóor na ko ci kaw ñu jóg dara amul delloo na ko lu muy am dugg na Oh, c'est extraordinaire ça Magnifique reprise Égalisation Foyer zone de Meneval Bibi Reino Bibi Reino Bibi Reino La ilaha illallah Doko demi volerek rek Vestel égalisation ginnaaw bi ñu amee 38e minute Le xaley foyer yi def seen égalisation ci bii bu rëy centré nañ arbitre lu muy def nii ñii ñëwaguñ sax mu joxe coup d'envoi loolu moom xanaa loi bu bees la sooy met la amewaat mais bii paa nu muy ah ni mu demee woon presque mais bii paa génn na génn na bal bi xale ñu ngi koy joxolante waat luus na ko xale bi xanaa day seetaan Lionel Messi yooyu Messi di def la def bal bi ko luus lu ñuy am ngi dem moom kii lu muy def ni ab cagi la génn sooy mee Aïcha mi ngi noonu salaamaaleykum à tous et à tous salaamaaleykum. bu ñu demee 38e euh, minute la waa ASC Médina Fall égalisé ki ko dugal mooy Cissé ñu numéro 14 Aïcha mi noonu match baa ngi noonu waa ASC Kër Seydou Ndoye waaw le ballon est sorti 6 mètres ak yeneen 6 mètres 8 ans. ah dégg Ngom gardien ñu dem foyer def nañ benn changement léegi changement bi def nañ changement ci côté défenseur bi pour gën a wóoral seen euh, arrière Pape Sall moom moo dugg léegi def euh, remplaçant bi pour assurer défense bi nga xam ni tey attaque Kër Sayib Ndoy am na attaquant boo xam ne dafa expérimenté super sax expérimenté la ñuy wax ñu koy wax Doudou Gueye moo yor noonu bal bi takk numéro 10 bi moo nekk noonu ay ca ñu doxalante aca ñu doxal Pape Sall génne na ko ndànk moom it joor bu mag la yàgg na ci nawetaan ku ko gis xam ni ak zëm nu muy joué nga xam ni kii il est très expérimenté ci nawetaan amatul lum ci wut ndax jël na ci lu nekk moom Pape Sall ak ay différents équipes tey moo nekk libéraux noonu foyer jeune Médina Fall daje ci attaque kër Sayib ndooy ki ñu leen doon présenté léegi muy Doudou Gueye mi ngi noonu ngeen gis ci suuf écran bi moom Doudou Gueye moom it jël na lu nekk def na lu nekk fii Maniang Soumaré génn na fi bii bu nekk bu dul biiwu jine dugal na ko tey mu jàkkaarloog Pape Sall ñu xool nag nu wànnen di mujjé ki gëtëm ku nekk am nga ben sa morom ay ca ñu doxal wa ngir jox xalante bal bi ñom wa Kër seyim doy récupération par équipe foyer zendame nafal colol nañ ko ca kaw ca bàyyi ngon la ñu dem la koy def lu muy am jox na ko attaque ba ca kaw ñu ngi koy njëkkante coup d'épaule suy met wala tuus arbitre nee na tuus la arbitre nee na tuus la xale foyer ñooy doxal lu muy def nii arbitre nee na tuus la ay kër sëy bi ñu ngi koy joxalante lu ñuy am day jook ay ca ñu colol bal bi ci kaw tuus et puis on entame match bi ñu ngi koy gis ci beneen xar kanam depuis changement am côté foyer ba léegi ñu ngi gis match bi am na ambiance am na rigueur am na lépp lu ñuy laaj si match ndax bal yi doon sànni ci kaw di ko colal amatul lépp tey euh, réglé waat nañ ko ci beneen manière Bécaye dégg ngeen ko sànq lijjanti na ay goneem wax leen niñ war a def jubbanti leen wax leen seen i faay fu mu nekk pour ñu moytu ko bala ñuy jël beneen bii ndax waa Foyer moom gaaw nañ ci gaaw nañ ci dóor ci mbaali blessure lañ am fule xale Foyer la kenn blessé foofu noonu orzo la wax arbitre orzo la wax jour rapide ah, joxe nañ ko ca kaw lu xale Foyer yi di def nii moytu leen moytu leen ay ca ñu dem ay ca ñu dem duus lay doon foyer ñoo ko moom jëme ko seen wàllu ndeyjoor wële ca côté lampe ba projecteur ba mi ngi cherché mi ngi cherché mi ngi cherché lu muy am duus contre foyer ay ca ñu dem corner suy met ngay am suy met côté Kër Seyib Ndoy changement côté ban côté kër Sayib Ndoy lay doon wala foyer numéro 2 kër kër Sayib Ndoy mooy ban mooy dugg pit nee na gardien dégazel beneen occasion beneen pause am ndànk lañ koy def ñoom xale foyer yi nañ foo fooyee bal bi alay fooyee yi ñu ngi jokkalante bal bi ci kaw ay ca dem relance day génn Pape Sall la ndànk la koy génne ñu dem ay ca dem mu joxaat ko ko ñu génn ko ci biti ay wa ñu dem naan ko fekki ko lu muy am day paas ndànk arbitre lu mu wax dara paas na ko ndànk Doudou Gueye ay ca ñu doxal ay ca ñu doxal wàcce tiki taka Beau Franc xaley Bécaye ñu ngi dem ci mënunu Bécaye li Bécaye di jàngale ci centre formation boole nga xam ni moo nekk Medina Fall muy tiki taka am jóob joxal njaay colal na ko ci kaw lu muy am li nga def wóorul nga def wóorul arbitre lu muy wax coup boo tiire woon pelanti sax kenn du ci mer arbitre bi nee na coup bi mi ngi defar sàppeem nga koy seen noonu mi ngi joxañ ñetti baaraam wala ñeenti baaraam defal nañ ko juróomi sàkket attention nag du duggee ci ay coup bal ba dem na ca kaw góor bi langaa miitu ci ay kaam kon mooy loolu tiitalu ma kër Seyib Ndoy mi ngi noonu di dugg góor bi dégagé na bal bi bu ñuy am orzo orzo la arbitre wax te la faveur de Medina Fall lu muy def nii góor bi jëli ko ci kaw double tentative la ko def da ko jëli ci kaw doyu ko mu wàcc moom à deux temps dégagé ñu def profondeur ci kaw lu ñuy def ni ma koy yootaan xale ba ngi koy protégé lu muy am am na tuus jàll na faute la waa foyer di di am def nañ ko jeu rapide aca ñu dem doxalante bal ba ca milieu terrain ba lu ñuy am ay ca pour kan xale bi mi ngi koy génn protéger na ko dóor lu muy am bal bi ci milieu terrain ba da koy dagg wala day dem def na profondeur bu kawe lu mu am góol ba mooy génn jël ko ndànk daa def relance trop la ko def acce ñu doxal ñoo doxal ndànk xanaa ñi boogatuñ bi supporters yi sax ñi ngi laaj bi supporters yi ngi laaj bi mais ñoom ñu nga cey nekk di tëmbal rek ay ca ay ca ñu dem arbitre atel ndem am nga sifflé ay ca ñu doxal bal bi génn na bu duggee daw loolu lépp. daa fay tête Moussa ah. tuuti rek mu dugg. relance la bu jógee ci milieu terrain bi ñëw ci latéral bi dem ci Doudou Gueye na bal bi ma ngay songu ay ca ñu dem da koy téye wala day joxe bal bi relance ci digg bi profondeur la ca kaw aywa ñëwaat na ci moom côté. foyer ay ca ñu ngay dem ña ngay doxal lu bi def nii attention attention Doudou Gueye ma ngay réclamer faute ne ko dara amut tuus lo nee na orzo arbitre lu mu wax nee na côté bële la jëm. attention a fo jam jubana te lu muy tànte nii loob xanaa boo ko tànte da nga yëkkati bal bi ay ca xale kër sayib yi ñooy doxal xale kër sayib ndoy yi ñooy doxal ña ngi koy joxante lu muy am intercepté na bal bi mais jàllul bi dugaloon nañ ko ko waa corner lay am Pape Sall moo nekk noonu moom lañ leen doon présenté léegi mooy libéro bi ku def presque ay at ci nawetaan war nga ko mën a xam ne moom amul leen lum ciy ragal moom Pape Sall gis nga ni ko def ànd xale bi rek bam dem ci point corner ba mu tëdd génne bal bi ndànk club Kër Serigne Ndoye bi teg na bal bi ma ngay jekkal seen deuxième corner ci deuxième mi bi attention bal arrêté lu muy am arbitre nee na dara orzo orzo la arbitre bi wax orzo la arbitre wax kon mooy bi refusé marquage lu muy am ni yéen koy seetaan te attention attention Doudou Gueye attention Doudou Gueye coup franc la coup franc la arbitre bi joxoñ na point bi jëm ca kaay Medina Fally reprise volée la ko doon def mu mooy yóbbu kanamu jàmbur gi gise nañ leen ci Doudou ay coup ñepp xam nañ ko teg rek def ci mbali la tam def ci coup né ay ati ati at gis ngeen ko mu koy def mais tay mom lañ joxat coup bi nga xam ni presque 35 mètres yi matul mu war ko dor gol bi yeen ngi koy seen mi ngi defar sàppe bi di yernu ba yernu bi ngay yërndu dila indil problème boo jekkalee sa sàppe taxaw seentu bal bi Doudou Gueye Doudou dóor wala ku koy dóor Doudou Gueye koy dóor waa lu am arbitre nee na dara amul arbitre nee na dara amul ar bi na na dara amul arbitre dara amul ñing koy réclamer bal bi dafa kas xamuñu ndax dafa plus wala dafa lenen, arbitre neena bal bi dugul da genn tous la tirer man ñi ngi réclamer VAR ñi ngi réclamer VAR ndax am na wala amul tuus la ñu wax tuus la wax doxal tuus ba dem na lu muy am suy met suy met orzo la arbitre de tuus wax seen ngeen ko mi ngi noonu tàllal nay loxoom yëkkati drapeau na ci point bi la fanweeri minute xalé yi nga xamni ñoy xalé xale ndjay di wa Kër seyim doy am nañ ko franc teko kok di Doudou gay niñ leen ko xamalé ni ngeen ko xamé ci ko franc dor ko arbitre ne bal bi dugul lu nuy mujjé ma ngay génné benen pass lu muy def oh da ko téluul waaw waaw no fi juggé ñu dem acca ñu dem te bal bi ndànk lu muy def da koy duut arbitre lu muy wax dara la wax nee na ko dem leen ay ca ñu dem ay ca danga koy joxalante ay waa ñu dem arbitre nee na faute oh, match bi toll na ci diggante bi nga xam ne fi mu tol nii ah kër Issa kër Seyib Ndoye ñoom ñoo gën a soxla fi mu toll nii bii bi ndax ñi ngi teg bal bi di joxalante bal bi mais xale fu waaye dañoo taxaw di seetaan rek di seetaan li waa kër Seyib Ndoye di def bal bi mel ni ku bokkatul ci fomi mi xaw nañoo réer quelques minutes ci lañ amee coup teg ko door ko ci mbaali arbitre bi na dugul Bo ba léegi nag yéen ngi gis wa Médina Fall yi dañoo jaxasoo ay ci ñu dem fóot fi tol ni ay fóot rek la ni def ay ci ñu doxal numero 6 go ma ngay dem lu mi am profondeur lañ ko ko oh arbitre neena da nga jogi ci tanku jambour bi arbitre bi ñema nay carton jox nako ben jox na ko benn koy waxee xale yi kër Sayib Ndoye moytu leen leen si seen i bari arrêté am nañ mbëkk kaat am nañ ay tireur kon moytu leen leen sànq ba léegi ñu ngi leen avertir ah ñaari yoon ñetti yoon ñeent nag xanaa daa war a jëm ci camp yi fu mu koy teg point planti wala da koy jéem a dagg def na ko ci point penalty bi lu muy def tulli na ko fu mu jëm ci milieu terrain bi la jëm défenseur bi wàcce ndànk mais attaquant bi ñëw na songu si nañ ko lu muy am day duut wala lu muy def def na passe bu ndaw profondeur ci biir Doudou Gueye bur bi ndànk am dugalal la ko wax lu xale bi def joxewaat na ko door na góol ba na ko oh suy meet ci loxoy góol bi la ko fekk maa ngay wondeelu lu mu def nii wëndeelu na c'était la bille du match ça c'était la bille di match parce am nañ trente-huitième minute boobu ba léegi depuis trente minutes benn occasion moo fi am muy coup franc bi ma ne la gis nga xale bi lim ko def dañoo def paas rek mu génn ñu retraire ko bal bi biñ ko retiré mu delloo ko saa dóor góol bi génn ko ñu fekk ko. ñu ngi réclamé waa foyer ñu ngi réclamé VAR bu ngeen bu ar. au franc de góol yaa ko gën a tey góol bi wàcc nga am li ngay am ngay jugandoog moom. attention attention leen mu dóor dara amut arbitre dara amut nee na lu ñuy def day dóor wala yàq na ko. xale yi yi am nañ contre nu muy def da koy yóbbu wala day tee bal bi da koy talone waaw waaw nangu na ko acca arbitre dara amul acca fële la jëm changement pour côté foyer ay ca ñu dem dafa mel ni li xeeñ mooy xale foyer yi dañoo bëgg a dem serrituro bi ndax ñi ngi rey temps ginnaaw bi nga xam ne nii jëlee nañ quarante troisième minute lañ demagum ñi ngi def seen i dernier changement ay tireur la ñuy dugal ay ca ñu ngi doxal ci milieu terrain bi ñoom ñi nga xam ni mooy xale Bécaye Ndiaye yi dëkkee fële nga xam ni mooy Kër Sayib Ndoy xale yi ku leen gis xam ni jàngal nañ leen football ñi ngi def loo tegu si temps mais seeni dernière occasion yi nga xam ne moom lañu ñu war a soigné def ko bal bi ci camp yi moom lañuy ñuy sàgganee mais ñi ngi football Doudou Gueye boo franc ci moom apet ñu kale ko numéro 6 foyer bi génn na ko la muy def ni su dooree ngeen yàqu coup franc coup waa kër Seyib Ndoy ñooy njëkk door noonu côté camp foyer jeune de Ménéfal ñoom ñoo fa taxawe dàq jongante dàq dóor bar ci mbaal foofu la ñu toll arbitre jox na ko ndigal wala day laaj day laaj pareegul kon nañ ko déglu Doudou Gueye moo jël bar bi war xam naa pour jox confiance ay xaleem ko ndigalu dóor moom Doudou Gueye lu da koy contre pied la ko def su jot na su jot na moom Doudou Gueye waa kër Seyim Ndoye rëdd nañ benn waa Foyer ñoo war a dóor waaw ñu dem côté Foyer ñoom tamit ñu ngi noonu di waaj a dóor seen premier tir ñu xool ñoom it nu ñuy def dañ koy def ci yi wala dañ koy jaarale ci kaw wala gol bi da koy jàpp jaarale na ko ci kaw nee na lii lu mu doon lii lu mu doon di courage jeexagul jeexagul da ngeen ni soog di débuté Kër Seyib Ndoye am nañ benn waaye amuñu dara yip ñu ngi noonu di dóor seen deuxième tir nu koy def dugg na bool ba topp na ko ba mu jeex waaye bala gën a gaaw nit lañuy ñuy wax deuxième bi pour waa Kër Sayib Ndooy benn ñaa Kër Sayib am nañ benn am nañ ñaar waa amaguñu dara. Dugay moo ibi tiiru ñee di seen magu équipe Pape Sall mooy deuxième tiiru waa Foye des jeunes na mel ñu gis ko noonu mu taxaw ci bal bi lu muy jàng wàcce na bàyyi yéegalaat na ko arrière na arrièreat am na 4 5 ci ginnaaw def na ni Cristiano Ronaldo daan def buy dóor coup franc mbaa du coup la war a dóor dugal na ko moom Pape ñaari tànk la yore bu ko neex def ci moo tax def na ko côté gauche waa foyer am benn ñii di Kër Seyib am ñaar troisième tir côté Kër Seyib troisième tir lay préparé noonu moom xale Kër Seyib Ndoy bi nee na pare na gardien foyer jeune de Médina bi pare na lu muy am arrière na benn ñaar ñetti mètre ñaar ak genn wàll lu muy def contre pied la ko def bu rafet mu fees del xale yi jóg daw wuti ko ñey daw seen gardien di ko encouragé jox nañ ko loxo yi comme dab ay ca saay jëliwul élan lu muy def nii dugal na ko jëlewul élan def na bal bi ci kay a bon manière de tirer la def teeg bal bi na ko ndank ci kay biu espoir baag noonu su ko dugalé match bi dafay yem Kër Sayib dem ak eh, demi-finale bu ko ratee waa Foyer am yaakaar mais dafa mel ne xale bi pare na góol bi jàpp na ko kon waa fu Foyer ñu ngi dundee yaakaar ndax ñi nga xam ni waa Kër Seyim Ndoye rate nañ benn dugal ñett ñoom ñu rate benn dugal ñaar ñu xool nu waan leen di mujjee ki bëtam moom mi rate ñu ngi koy gàttandu si di ko encouragé kenn nangu wut dóor ñom wa foyer zende men na fali kenn nangu wut a dóor ñoom ñëpp tëdd nañ gis ngeen len dañuy ragalo dor wala lan la kenn jël na engagement dem pour dor lol rek mo fi desan ah. par bang nonu pour xalé foyer zende men na fali dugol na contre pied bu rafet lako def ku nek am nga ñett ku nek dugal nga ñett rata ben De am yaakaaru gagné ay ci mang koy gardien bi def défense bi mo ñew door di conseiller ya ya ñu ci wara mëna mën ay ci gardien bi mi ngi wane bopam, ndax mom moy door wala du door ma ngay fo ci bal bi lum koy wax da koy jappat wala lu mi def ma ngay fo ci bal bi xanaa day tiital attaquant bi war a dóor si nañ xool negi wan leen di mujjee ki gëtëm da koy jox ndànk na ko am dóoral ma jàpp mu teg bal bi arrière tiiru cinquième tiiru waa kër sey ba ngi noonu góolu foyer bi taxaw na jonu di ko xaar jàpp na ko mu rëcc bal ba am nañ kaat rate benn waa foyer ci des teg bal di rafetal su ko dugalee ñu am yaakaaru rombu kaar su ko dugalul ñu xam ni seen moomeel la moom quart de finale dogal na ko moom it góol na ko comme daab am yaakaaru dugali na mooy dóori wala lu muy def sixième tiiru waa Kër Seye ba dugal na ko waaw waaw amul fenn li nga def amul fenn lañ la wax na ko bal bi moom gardien bi lu muy xaar jàpp rek comme nu ma ko waxee woon sànq waa foyer ñibbi wala day dugal ñu dellu ca jongante dàq dóor ci mbaal fi mu toll nii yëf weesu na fañ ko doon yaakaare ndax ñu ngi ci sixième tir da koy dugal wala da koy na ko waaye toogee na fa mu daan toogee muy quart de finale waa kër Sayib Ndoy jàll nañ demi finale ginnaaw bi ñu amee six bi cinq bi ñoom waa. Kër doy Ndoye waa am 4 ci tiro bi tàmm nañ ko tàmm nañoo toogee fii di quart de finale seen moomeel la comme niñ koy waxee seen moomeel kenn du leen ko bàyyil Babacar ñu gis ni match bi euh, perte ngeen ko lan moo tax ngeen perte match bi waaw match bi perte nañ ko par série par tir au but euh, mu doon loo xamante ni peut être euh, sens la ndaxte tir au but moom dafa doon loo xamante il faut nga am ay joueurs yu nga xamante ni si dañuy capable am concentration bu doy waaw bu doy bañ a mm, offre bi ak tey ji nii stade bi mel mu demee nañ noo xamante ni si day permettre jour bi tey ji du nekk du tranquille ndaxte tamit nit nit la rek la mën a demee waaw mm, loolu waral peut être ñu perte match bi am kafiyaat foofu ñu dugal but bi xam nga kon peut-être keur sey man nañu 5 premier minutes mo duggal mo moo dugg ci match bi legui nak moment bobu ñu woowat joueur yi gën leena waxat waxaat replacer wala taxawat leen leen tey le dara match bi demagul fenn da fay dugg ci ay seconde lay dugg kon il faut ngeen dal bu ñu yàkkamte duñu am boo seetloo sax ci moment bobu joueur yi ñi ngi yakamti na tey comme ni mu demee ci match d'entre kii bi euh, regroupement briefing bi fa demee leen loo xam ne da ngay sentir ni joueur yi dañoo paré tay ji pour jëli victoire bi lu nekk ci football mais ñun mom dañuy bëgg bayyi football ci moment bi nga xamante ni ci mën nañ ko ay xale yi seen sens te gis nañ ci ñoo xam ne ñoo ñu jiitu fuuf fuuf si football ñi ngi nekk Kër Seyib Ndoy di football kon ñooñu dañuy ëpp expérience xale yu ndaw yi te ci loolu nag loolu moo waral moment boobu Medina Fall dikkat ci match bi téyewaat match bi nànk-nànk pour ñu man koo gérer jëm série série nag tiro bi soo ko déggee peut-être sens la ak équipe bi gën a concentré wu moo ko moom waaw ci encouragé ñu ngi koy félicité di encouragé suñu joueur wan leen ni démérité wuñu def nañ li ñu waroon yu ndaw bëri na joueurs yoo xamante ni si D1 football nañ ko football nañ D1 waaw xam naa ci joueurs yoo xamante ni si ñu ngi na tey yàlla dafa def ay footballeur la ñu xam nañ lu bëree bari D1 la ñu football matalu ñu ay match ñi ngi kër sa yëpp di football ñi ngi fi di football kon man xam naa bu baax a baax li ñuy wax ñu janoog ñooñu ñoom ñi nga xamante ne si peut-être ay junior lañu euh, ñi nekk ay senior yu soog yëg yéeg euh, peut-être football amaguñu niveau bi ñee am peut-être expérience boobu moom tax ñu ñu ñoo leen gën a concentré boo seetloo da ngay gis jour kër sëy ñooy gën a concentré wu. ci sérieux bi non du sóoraale bopp ndaxte boo seetloo foyer deux ans yi weesu soo xoolee da ngay gis ni foyer kenn mësu ko gagné si terrain bi kenn gañewu ko deux ans yi daaw ren kenn gañewu ko ci terrain bi sur le terrain kenn du ko ci gagné te boo seetloo foyer daaw ak ren poulam mooy jël paie te poulam day doon euh, day day football di gagné ay match dafay gagné match yi soo seetloo loolu soo ko xoolee daaw ak ren match yi da koy gagné paie bi jëlu ko ci ay match nul da koy jël gagné dem jëli paie mm, dikk quart de finale heure bu dikkee quart de finale day demee noonu Euh, de 2 boo seetloo dañoo dëkkandoo dañoo nekk match yëpp day doon derby il faut nga am